wa ala alihi wa saxbihi wa xayri xadimihi dawi ridwani wattamkin subhanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim rabbi shrax li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyóob lislaam di suñu borom ak yërmandeem ak barkeem di jiital ci nuyo bi ak ziyaar bi cheikh Mahamadul Muntaqa mi nga xam ne moo toog jataayu cheikhul Xadim te mat ko sëkk ñu ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool. te dolli ko wér lool ba mu àggale ay yéeneem ak i naalam ci lislaam bii nga xam ne euh, mooy toolub sëriñ Tuubaa di ko ñaanal mboolem njabootu sëriñ bi waaye di ko ñaanal mboolem kilifa yi diine yi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci alaalamul islaami yi di ndokkeel nag jullit ñëpp bala ñoo ñëw ci waxtaan wi ñu ngi ndokkeel jullit ñëpp ci weer wu màgg wi nga xam ne ci lañu nekk di weeru rajab bisub tey bi tollook aljuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru rajab ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett fukki fan ak juróom ci weeru février février ci atum vingt 2022 ñuy ndokkeel ñëpp kon ci weer wi waaye di ndokkeel ñëpp itam ci xew-xew yu mag yi nga xam ne moo xew ci weer wi te muy eh, yu ñu xam di yu ñu miin waaye muy yu am solo itam mu bokk ci ni ngeen ko xamee ci rajabul fard bi nga xam ne moom weer wi dafa bokk ci ñeenti weer yi nga xam ne dañ leen a jox war ma lool ci diine suñu borom it jox leen war ma lool waaye mu am ci guddi goo xam ne bu ñëwee dañ ci fàttaliku xew-xew bu mag wala xew-xew yu mag yoo xam ne xew na ci diine ba ca jiitu di al isra wal miraaj di riñaan ak yéeg gi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam moom la ko suñ borom defaloon ca eh, te fekk mu jële ko fa nga xam ne moo di masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa waaye jële ko foofu itam yéegal ko ba sidratul muntaha wala ba fa soob suñu borom te xam ngeen ne ci daje bu am solo boobu mu dajeeg boroomam ci la ko suñu boroom jox sërici bi nga xam ne mooy sërici bi dàq ci ab jullit te gën cee tonaw te gën cee am solo mu di julli muy julli juróom te doon doonoon juróom fukki julli ni ngeen ko xamee kon muy xew-xew bu am solo boo xam ne ñu ngi ci ndokkeel jullit ñépp waaye mu am it xew-xew bu am solo boo xam ne itam suñu boroom da ko baaxi euh, Cheikhul Xadim muy feeñu kenn ci njabootam di Cheikh Amadou Fadal moom itam ñu ngi ciy ndokkeel kon képp koo xam ne taalibe nga képp koo xam ne sax juddit nga waaye képp koo xam ne taalibe nga soppe nga di wëllëre di ñaan suñu boroom mais ñu ñu àgg ci jàmm te def ko ni nga xam ne noonu la ko eh, suñu boroom bëggee te mu dëppook sunna te lépp lu ngi def itam ñu daje ci ngërëmam ginnaaw ndokkeel googu nag ak ziar boobu bokk yi dellusiwaat nañu tey jii ci seen seen jataay bi ñu baaxoo am ak yéen muy jataay boo xam ne miin ngeen ko mu tudd xayaat cheikh al xadim xayaatu cheikh al xadim radiallahu anhu wa ardah muy dunduk cheikh al xadim gu barkeel googi nga xam ne waxoon nañ ca ba ñuy tàmbali jataay yu njëkk yéene moom ci boppam moo xam le woon ne yàlla may na ko mu làq dund goo xam ne ci barke ak bénéfice ak leer ak mbóot ak ak ay ndam yu tegaloo yu bari yu biir yu biti dund la goo xam ne nee na dee dee gisati mukk ginnaawam mun waaye mu ne la moom dund goog yi dundam goog yi kiimtaan la goo xam ne dafa mujj ñëw rek waaye ci kiimtaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk xuztu xayaatan la tura li gayri mucjizatan baanat li uzni xayri dudd googee nag xam ngeen ne tàmbali woon nañ ci ak yéen ànd kook eh, waa daayira muqaddamatul xidma rawatina seen bii nga xam ne moo di MK TV di muqaddamatul xidma TV eh, tàmbali woon nañ ci ak yéen ay jataay laytaay won ko lenn ci njàlbeenuk sëriñ bi ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci loolu su ngeen fàttali ko jataay yi weesu jotoon nañu waxtaane eh, lenn ci ñi nga xam ne mënees la leen a tuddee ay sëriñ ay sëriñ ci sëriñ bi ndax jaar na ci seeni loxo ñu toqi ko ci wàllu jàng ci alquran ak sa xam-xam euh, ñu jotoon ci tudd ay kilifa mu bokkoon ca way juróom bu baax wa di sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali nga xam ne kenn juutuwu ko ci ay sëriñam euh, waaye itam ñu tuddoon ci itam ka nga xam ne nijaayam la di sëriñ bu soobe tuddoon ci itam ki nga xam ne baayam la baay tax la ci moom di maamam itam di maam tafsir Mbàkke Ndumbe eh, jotoon nañoo waxtaan it ci waajuram bu baax wu jigéen wi nga xam ne moo di soxna jaaratullahi Mariam ndax moom it manees na ko tudde sëriñ ndax eh, am na lu mu jàngee ci sëriñ bi ci loo xam ne ndey baax wala waajur wu baax woo xam ne dafa yaru ci diine am xam-xamu diine waaye di jël njabootam di leen toqi ci diine di leen jàngal itam nag ñi nga xam ne moo di noonu lañ war a dundee diine te booba sax xëy na sëriñ bi tolloogul ci di dem ci daara ji wala yu noonu tey jii nag mbokk yi dañuy wéyal lool xam naa ngir mottali ngir mottali eh, lim boobu nga xam ne eh, moo aju ci ñi nga xam ne ñoo jàngal sëriñ bi ginnaaw bi ñu waxtaanee jëmm yu yu baax yooyu ñu tudd eh, ci loo xam ne dañ koo détaillé woon kenn ku nekk ñu jagleel la sa jotaayu bopp tey ji incha allahu taala ci daje bi eh, dañuy jéema a eh, mottali kon li nga xam ne moo desoon ci ñi nga xam ne jot nañoo gëstu wala gëstu maye na ne sëriñ bi jaar na ci seeni ci seeni loxo ñooñu nag mu am ci ñoo xam ne xëy na euh, li liñ leen di dégg bariwut waaye buñ delloo ci gëstu yi ci ci lenn ci mbindi mag ñi danañ ci fekk seeni tur yoo muy muy ñoo xam ne euh, xëy na mu mu néew mu bari ku baax yi Cheikhul Khadim jaar na ci seeni loxo ci wàllu njàngum alxuraan lañuy wax ba tey incha allahu taala danañ ñëw it ci ñi nga xam ne ñoo di ay sëriñam ci wàllu njàngum xam-xam rawatina xam-xamu diine ak xam-xamu luga yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a jekku diine mën a jekku alquran mën koo dégg mën a jekku sunna mën a jekku xadis mën koo dégg mën koo jëfandikoo incha allahu taala kon tey danañ tudd ñenn ci ñooñu tudd goo xam ne tuddug mba bëstal lay doon nga xam ne dañ koy e, boole rek jaar ci ngir mu doon loo xam ne kuy gëstu incha allahu dana la dana la jariñ kon mbokk yi ñooñu ñi nga xam ne sëriñ bi jaar na ci seeni loxo ci wàllu njàng Eh, am na ci jëmm ju baax ju ñuy wax sëriñ Moor Soxna sekk sëriñ Moor Soxna sekk Mbàkke Mbàkke la sant di doomi eh, sëriñ Mbàkke Ramata sëriñ Mbàkke Ramata moom mi di doomi Sayer Soxna Buso Sayer Soxna Buso mooy Saïd moom di doom ci maam Maharam eh, sëñ Moor Soxna moom mi ci téere sëñ Musaa Ka bi mu tudde miraatu ulil absar sëñ Musaa wax na ci ne sëriñ bu mag bi jaar na ci ay loxo maanaam sëñ Moor Soxna Mbàkke mi sëñ Moor Soxna Sekk Mbàkke mi jàngal na ko euh, euh, aslaf ci alquran alkarim euh, loolu sëñ Musaa ko tudd na ko am na itam keneen ku ñuy wax sëriñ Balla Jatara bokk ci waa Jatara moom itam di mbokk ci jitaay yi weesu sax Eh, defe naa jàpp naa ne am na luñ jotoon a tudd ci moom moom itam wax nañ ne sëriñ bu mag bi mm, jaar na ci ay loxoom eh, moom sëriñ bi ak mbokkam mu baax ma di magi mag di maam moorum soxna jaara jaar nañu ci loxoy sëriñ Balla Jatara moom yi ngir mu di leen toppal ak di leen wéralal li nga xam ne moo di seen seen àlluwa booba fekk na xam naa ne ñu euh, jàng ba wattu war a toll nag ñu di leen euh, wéralal seenu dégg seen àlluwa ñu euh, xëy na yabal leen foofa ci sëñ Balla Jatara ngir mu àggaleel leen lu aju ci loolu yi loolu itam firnde ji nga xam ne moom lañ ci sukkandiku mu doon tegtal bi mooy benn bataaxel boo xam ne bataaxel la bu sëriñ bi mag bi bindoon ci loxoom ci jamono yooyee ci jamono yu yàgg eh, te booba way juróom di sëñ Mor Anta Sali moo ko binduloo woon bataaxel bi bataaxel boobu nag mi ngi jëmoon ci eh, taalibeb sëriñ Mor Anta Sali boo xam ne dafa jànge ci ay loxoom ñu di ko wax Abdullahi ibnu Ahmad eh, tam sant Touré sëñ Abdullahi ibnu Ahmad Touré moom la sëriñ Mor Anta Sali doon bind leetar sant doomam ju baax jooju Seexul Xadiim mu bind leetar boobu maanaam mu bind bataaxel boobu bi ko sëñ bi bindee nag ba bataaxel ba di jeex ca mbicc ma ca suuf sëriñ bi da ca bind loo xam ne day junju ne day wane ne moom sëriñ bi jaar na ci loxol sëriñ Balla Jatara mii ma tudd léegi ndax boo demee ca euh, suufu suufu bataaxel ba Seexul Xadiim mu ngi ciy wax naan wassalaamu aydan min kaatibihi xalilika ahmad sall ahmad sall boobu noonu lañ ko daan wooyee ilayka wa ila cheikhihi in kaana xaadiran indakum eh, te jooju mi ngi ciy doon junj sëñ Balla Guitar moomu muy wax ne eh, maa ngi lay nuyu ma itam eh, yow sëñ Abdullahi ahmad sëñ Abdullahi ibn Ahmad Touré moomu maa ngi lay nuyu nuyu boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci bind Euh, maanaam bataaxil bi di sa xarit tudd Ahmadou Sall xam nga ne sëñ bi ci ay jamono ci ay jamono yu njëkk Ahmadou Sall lañ ko daan wooyee euh, ndax maanaam turandoo wa euh, loolu sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad waxtaan na ci waxtaan yu am solo yoo xam ne leeral na ci ci njëlbeenu sëriñ bi luy firndeel ne daanañ ko wooyee noonu sëñ bi itam boo bu njëlloo ci ay mbindam yu njëkk yu jiitu muy woote yoon wi ak rawatina ci nekkuk sëñ Mbàkke Madina Sali danañ ci gis muy maanaam bind Ahmadou Sall eh, mu ne ko nag kon eh, Ahmadou Sall mii nga moo bind bataaxel bi di moom sëriñ bi mi ngi lay nuyu yow itam waaye mi ngi nuyu itam sëriñam sëñ Balla Guitara su fekkente ne mi ngi foofu fi yéen fekkee mi ngi fi foofu ci yéen loolu day firndeel ne kon sëñ Balla Guitara jaar na sëriñ bi jaar na ci sëriñ bi ak magam ju baax ja eh, maam moorum soxna jaara Euh, loolu euh, maanaam source bi fi ñu ko jëlee euh, mooy téere bu am solo bi nga xam ne Rawdu Rayaahiin def nañu ko daaw daaw jéeg ci ci ci maanaam ci màggal gi ci conférence màggal gi te tuddee ko xayaatu Cheikh al Xadim qabla al ghaybati al bahriya maanaam dunduk sëriñ bi lu jiitu muy dem ci géej gi boo ci demee di ci fekk lii ma andi ak yeneen yoo xam ne aju na ci ñi nga xam ne ñooy jàngal sëriñ bi Mm, te ñu tudd leen kon ginnaaw sëriñ moor soxna Seck Mbacke moom sëñ Mbacke Ramata moom sayer soxna Bousso mi nga xam ne wax naa ne am na lu mu jàngal seriñ bi ci alquran ci ni ko sëñ Musaa Ka nettalee ak sëñ Balla Guèye mii nga xam ne moom itam euh, ci bataaxel boobu sëriñ bi doon bindal way juram te doon ko adressé kenn ci taalibe yi sëñ Mor Anta Sali di ku ñuy wax Abdullah ibn Ahmad Touré sëriñ bi wane na ci it ne ku ñuy wax sëñ Balla Jatara ci boppam doonoon doono doo doonoon na sëriñam ci wàllu ci wàllu njàng eh, loolu itam da koy koy firndeel mu amaat keneen it koo xam ne moom itam wax nañ ne sëriñ bi jaar na ci moom nga xam ne sax moom sëriñ bi moo wax ne kooku moo ko mujje toppal alquraanam kooku moo mujje toppal alquraanam muy sëriñ Ibra Binta Silla sëñ sëñ sëñ Ibra sëñ Ibra Binta Silla moomu Sëriñ Tuubaa moo wax ne euh, mooy ki nga xam ne moo ko mujj wéralal li nga xam ne moo di moo di alquraanam euh, kon euh, loolu itam doon na firnde ci ne sëriñ bi jaar na ci ay loxo moom itam ki ci ki ci mujj mm, ci ñooñu nga xam ne dañ leen di tudd bu gaaw mooy te sëñ sëñ sëñ Madi Lamin Jóob Dagana andi ko ci an nubzal mubaraka nga xam ne moom dafa xam ne sëriñ bee ko wax ne jamono yi ñuy nekk Saalum am na ay jamono sëñ Mor Anta Sali ci e, tukki yi mu doon def déplacement yi mu doon def am na ci yoon woo xam ne dafa ànd ak sëriñ bi bi mu ñëwee ba ci dëkku e, dëkkub wala kër ku ñuy wax borom xam-xam bu baax bu ñuy wax sëriñ Aliyu Kalamba sëriñ Aliyu Kalamba dëkk foofu ci wàllu Saalum gi sëriñ bi ba suñu mën an bàyyi woon na fa sëriñ bi bàyyi woon na ko fa lu toll ci ñaari fan jëm ci ñetti fan nger moom itam mu am lu mu dégg nga jële ci moom ci wàllu njàngum alquran buñ nee nag njàngum alquran duñ bari dañuy defe rek mooy njàngum mokkal ko nii rek man koo tari waaye ku ne xam na ne mag ñi ñoom dañ daan jàng alquran di jàng ulumul quran eh, moo tax eh, njàngum sëriñ bi ci wàllu alquran mën a doon lu yaatu diggante xëy na sëñ Busoobe diggante sëñ maam Tafsir Mbàkke Ndumbe diggante way juróom ñooñu lépp lu aju ci mokkal gi moom euh, ak maanaam tari gi tari wu bu rafet ak bind gi bind mu rafet loolu mën nañu wax ne maanaam génnut ñooñu génnut ñooñu ndax buñ delloo ci irwaak delloo ci ak ak ci minan da danañ gis ne moom sëriñ bi luy saxal ne sëriñ bi bi muy jógee ci euh, tafsir fekk na booba su mokkal jut itam miin na lool wala jege na mokkal waqat xaarabal xifz sax am na ku ko wax defe naa sëñ Mat wax na ko am ci ko wax ne booba ak na ci dégg nga la taji dan na nga xam ne daanaka fekk na booba euh, mu mu mu dégg nga mu jege mokkal mu jege wàcc euh, mu soog a ñëw nag àggale ci woy juróom sëñ Mor Anta Sali waaye ginnaaw mokkal geeg euh, wattu wattu gu rafet gi ak bind bu rafet faw faaw nag li maanaam yi nga xam ne dafa aju ci wàllu xam-xami alquran yooyu sëriñ bi dana da ko aajowoo woon ni ko boroom xam-xam yu mag yi aajowoo moo taxoon nag ñu daan ko yebal ci eh, boroom xam-xam yooyu nga xam ne ay kaang lañ te ay di ñu jekku alquran ñooñu ñii daan ko toppal àlluwaam ñii daan ko defal ay ay toora ñii di ko di ko di ko defal ay boole ak yeneen ak yeneen ba nga xam ne eh, lépp loo aju ci ulumul quran ci boobu jamono yi ñu daan jàng ci boobu jamono eh, moom dana ko peek ci xam ak wattu ak dégg yu dégg nga rafet kon loolu mën na euh, firndeel ne euh, jaar gi mu jaar ci ñii xay na yooyu la tey it euh, mu am ci leneen tam loo xam ne mën naa firndeel jaar gi ne lu lu lu la lu mën a nekk la mooy am na ci ñoom ñii ñoo xam ne dañ daan nekk ak njaboot gu mag gi maanaam njabootu Mbàkke gi ak njabootu Musoobe gi daanaka daaw ñu tàqaliko ñoom ndax ñoom dañ cee bokk ndax ku ku ku ci mel ne suñu mor soxna mi ku ci mel ne sa dégg nga maam Balla Gueye ñooñu ko xam ne ne dañoo bokk ci ci askan wi e, te it daaw ñu tàggoog e, sëñ bu sooy ba ñoom daaw ñu tàggoog e, maam tafsir ñoom daaw ñu tàggoog ki dégg nga sëñ mu ànd sali lu ci bari dañ daan nekk kon nekk googu ñuy nekk du ñàkk léeg-léeg sëriñ bi soxla wala sëñ mu ànd sali yebal ko ci ñoom ngir mu dem am lum fa jël ci loo xam ne luy gën a rafetal alxuraanam la luy gën a dégg nga mottali am am am la kon loolu mooy li nga xam ne ci tënk bu gàtt rek ci li nga xam ne gëstu mayeegun na ko donte nag euh, leneen mën naa feeñaat waaye ci liñ ñu amagun nii rek mën nañu wax ne ñii ñooy ñi nga xam ne ku baax ki jaar na ci seeni loxo ci wàllu njàngum alquran kon ginnaaw boo xamee ne tudd nañu ci jataay yi weesu euh, woy juróom bu baax wa suñu mën a sali tudd nijaayam ju baax je maam Sëriñ bu soobee tudd itam bàyyi taxam ba di maamam ju baax ja di ndax moom maanaam day day bàyyi di maam muy maam Tafsir Mbàkke Ndumbe ndax bu dee ci way bu dee ci wàllu suñu moon ànd sali lay doon bu dee ci wàllu soxna jaara ci euh, doon maam ndax nijaay soxna jaara la moom Tafsir Mbàkke Ndumbe ak ñooñu mën nañu wax ne ñooy ñi nga xam ne lu ëpp ci am njàngam daanaka euh, ci ñoom la ko defee waaye ñooñu itam ginnaaw bu ñu jàllee nag tudd nag ci jotaay bi ñooñu euh, ci ci li nga xam ne gis nañ ko ci ci ci wàllu gëstu wane na ne sëriñ bi jaar na ci seen loxo muy ku mel ne sëñ Mor Soxna Seck Mbacke di doomi sëñ Mbacke Ramata euh, di doomi Sayet Soxna Bousso euh, ak ku mel ne itam te loolu sëñ sëñ sëñ Musaaka moo ko moo moo ko tudd ci téeram bi ñu wax Mir'at ul Absar ak ku mel ne sëñ Balla Guettar mi nga xam ne wax naa ne sëñ bi wax na ne sax na fa moom ab diir doon toppalu alluwaa moom ak magam ju baax ja magi mag di eh, mam sa Cheikh Mamor moom soxna jaara eh, te loolu firnde ji andi nañ ko ci bataaxel boobu nga xam ne bataaxel bi eh, ci téere bi ma tuddoon léegi muy xayaatu Cheikh Xadim qabla al-ghayb al-bahriya sëñ Mbàkke Abdourahman mi nga xam ne moo ko indaat ànd fariq bi mu ko àndal kuréel kuréel bi ko àndal ci waa ci ci maanaam ci waa rawdu mi ngi mi mi ngi tudd source lettre boobu di wane ne lettre bi mi ngi bàyyikoo ci Serigne Moustapha Lay almudir mi nga xam ne ko ñu xam la ci wàllu gëstu ak ci e, wàllu peeg lu bare bare bari ci jaar-jaari sëriñ mag bi e, kon yàlla ko yàlla dolli wér ak ak tawfiq defal leen ko ñoom itam ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañuy <coughs> dundal e, yoonu sëriñ bi ci tasaare am jàngaleem te di ko def ci anam gu am solo kon lettre boobu ca mujj ga euh, sëriñ bi mi ngi ciy wax ne di nuyu euh, ki nga xam ne mooy ki sëñ Mor Anta Sali doon bind lettre bi di ab taalibeem di Abdullah ibnu Ahmad Touré waaye mu teg ci ne nag maa ngi nuyu itam euh, sama sëriñ bi nga xam ne mooy sëñ Balla Jatara su fekkente ne mi ngi foofu fi yéen kon ginnaaw sëñ Mor soxna Seck Mbàkke moom yi ak sëñ Balla Jatara moom i sëñ Ibra Binta Silla itam sëriñ bi moo waxal boppam ne mooy ki nga xam ne moo ko mujj euh, toppal alwaam baatu moo ko mujj toppal alwaam jóge rek dana wane ne kon euh, du ci kenn rek la yam ci koo xam ne kooka da ko doon toppal kon jaar na ci ñu bari te mag ñi noonu lañ daan def daaw ñu yem rek ci ci ci kenn boo jàngee ba wattu ba mokal dañuy dañ ah xool kat ne diw sàngam kaang la Euh, maanaam jekku na alxuraan ji mën na boole mën na nanga mën na tooraal ñu ne kon na na de nga dem ci kooka bu bu bu bu jógee ci kooka ñu seet keneen koo xam ne moom itam euh, géeju na ci yeneen fànni ulumul quraan yi dal ko yebal ci kooka bu ko defee mu di ko def di ko def di ko def nag bañ bu doon maanaam suñu jamono ji ñu ñu daal ko ijaazal wala ñu daal koy jox diplôme boo xam ne day wane ne moom jekku na euh, alxuraan ji jekk ween bu rafet moo tax ñooñee nga xam ne nag ci la doon jaar ci seeni loxo ñu di ko toppal nag alliwaam wax na ne kim ci mujj a dem mu toppal ko mooy sëriñ Ibra Bintu Silla mi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne jaar na ci seeni loxo ki ci mujj te ma tuddoon ko léegi mooy euh, koo xam ne moom xëy na euh, ak jaar la moom it waaye am na solo ndax euh, sëñ Mor Anta moo ko doyloo ba tax mu doon am fu mu doon dem wax sëriñ bi ne ko na ko nékk ci sëriñ Aliou Kalamba moom nga xam ne moo euh, nekkoon Saalum euh, wax na doonte sëñ sëñ sëñ Mor Lamin Joob Dagana moo ko tudd ci euh, ci ànnubza wax ne sëñ bee ko nettali ne booba ñaari fan wala ñetti fan daal xam naa moom la fay def kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo aju ci lii li li li li nga xam ne moo desoon ci ñi nga xam ne sëriñ bi Euh, jaar nañ ci ci seen ci ci ci ci ci ci seen i loxo ci wàllu njàngum alquran incha allahu taala ni ko waxee woon bu ñuy euh, dellusiwaat ci yeneen jotaay yi ñëw danañu euh, tudd ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci ay borom xam-xam yi diine ñoo ñoo xam ne ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi ba wattu ba jaar fi mu jaar ci ñii mu jaar seen loxo jaar na ci loxo yi ñooñee itam ñooña jàngal ko xam-xamu diine jàngal ko xam-xamu làkk luga al arabiya ba mu euh, jekku làkk wi lool ba tàmbali di taalif taalif gu teel ci ak dundam yooyu incha allahu taala danañ ci ñëw lii lépp kon laytaay rek la yoo xam ne dañoo bëgg bu ñu duggee nag ci euh, lu aju ci am njàngam lu aju ci ab yaram nag ñu xam ne nag ah euh, sëriñ bi ku ñu waajal la waaye ku ku ku ñu taxawu la waaye ku ñu jàppale la ci ginnaaw jàppale ak yàlla gi ginnaaw na naaya maanaam ilaahiya gi nga xam ne moom ni ko suñu bés waxee ne moom maanaam xuli xarabaani yéen nga xam ne moom daa daa ñëw rek doon nitu yàlla waaye teewul nag ci wàllu zahir moom fu nit ku baax di jaar jaaral nañ ko fa ci wàllu yar ci wàllu jàng ci wàllu xamal ci wàllu teete ci wàllu toqi ci lu baax ba macha allahu taala mu mel ni mu mel kon lii mooy li nga xam ne tey jii moom lañ leen waajaloon di Euh, sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu jotaay bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu dégg ak di gërëm itam suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo ne ci wàllu xarala gi di ko segg ba nga xam ne euh, da ngeen ko mën a suivre ci YouTube bi di ko mën a di nga suivre ci mboolem plateforme yi nga xam ne moo aju ci eh, maanaam chaîne bi di MK TV di Moukhaddamatoul Khidma TV te te ñooñu buñ ko tuddee sëriñ Abdul Xaadir euh, sëñ bu so mi nga xam ne moo ne ci wàllu xarala gi te ànd ak benn équipe bu am solo moom itam dana leen dana dana kon doy sëkk ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla mu ñu ñu fekkee incha allahu jotaay yi ñëw di leen kon jox daje euh, ci weer wi ñëw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru euh, tubaab wi ñëw incha allahu taala euh, wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum taala wa barakaatuhu lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu